yàlla bu baax rek di sant xalaat santé di sant seen coordinateur bi nga xam mooy tonton Cheikh Tidiane ndax euh, bekki ngi ñu ñu ñu jox ni la première fois ci xalaat santé ñu ngi doxal ñoom ci santé bi mais ñoom tamit ñu ngi bàyyi xel ñi nga xam ne ay askan la nekk ci biir Mbàkke gi ñu ay handicapé comme ñun yore fi ay association yore fi ay enfants handicapé yoo na laaj bu nañ ci ba xaw cee nekk mag ñi nga xam ne dañoo nekk ay xale ndaw suñu borom dogal ñi nga xamante ni noonu ko duddee ñoom tamit ñu bañ a ñu dund na bu gën a euh, oyof ci ñoom te moom mii mu dugal loxo ak ànd xale bu baax a baax a baax ñuy sant yàlla bu baax di leen ñaanal lu ngeen mën ren bu déwénee ngeen mën lu ëpp barke yàlla bu baax a baax ci turu suñu kilifa madame Bafou Ba présidente comité national ci ndigalu Baye Mbaye Sall mi président comité départemental bu Mbacké ñu teewal ko fi tey ndimbal yoo xam ne dafa jóge ci xalaat santé jëm si ci Croix-Rouge comité départemental bu Mbacké muy ay matériel yu jëm ci chef de premier secours te ay atel ne courage daf koy soxla ne dañu am ay leen a immobiliser yóbbu leen hôpital te duñu benn jafe-jafe seen jàngoro li leen daloon du mën a yokk loolu nag di ndimbal loo xam ne courage daf ko yàgg a soxla waaye tey ñu am ci buntu xalaat santé andil ñu ay ndimbal yu am solo ba noppi diggaat ñu ci ay ndimbal yu nekk si yoon wi te egseegul vraiment courage di ci sant ci turu Alaaji Mbay Sàll secrétaire monsieur Mamadou Diop di leen sant bu baax di ñaan suñu borom mu jëmee ko fi mu nekkoon rek ngir jàppale askan wi toujours ci lay nekk kon ku jug ngir jàppale ko yaa ngi jàppale askan wi vraiment ñu ngi ci am yaakaar tamit ci xalaat santé ci ni mu taxawee pour ko Croix-Rouge ndax Croix-Rouge képp ku am jafe-jafe croix yow wala sapeur pompier laataa ngay dem kër docteur kon malade bi faaw ko ba mu am ay matériel yoo xam ne a jàppale malade bi ba bu ko yoo xam ne du am benn jafe-jafe kon lii pour ñu gën a mën a def seen liggéey ci turu président Aladji Mbaye Sall ñu ngi sant bu baax di leen gërëm di ñaan suñu borom liggéey bi suñu borom jëmee ko kanam ak mbooleem yeneen acte yi nga xam ne def nañ ko mu jëm ci santé ci centre de santé bi eh, li jëm ci handicapé yi ak yëpp gis nañ ko vraiment loolu yëpp Croix-Rouge jàpp na ne moom la war kon ku ko def moom nga ko defal vraiment ci turu président ñu amoon benn don de médicament boo xamante ne ni ci turu xalaat santé dañu ko collecté woon ni dañuy ñëw def indi fi fii ci centre de santé bi eh, jébbal ko suñu docteurs yeeg médecins yi nga xam ne ñoo fi ne ngir jàppale leen ko liñ ci jublu nag mooy wane ak de citoyenneté liñ ci jublu aussi mooy waa ubbi ay bunt yoo xam ni pour ay exemple la pour ñi nga xam ni danoo nekk ci Mbàkke Bawal juddoo ci dëkk bi yaroo ci dëkk bi dëkk ci dëkk bi tanaan danoo bëgg dëkk bi liñ bëgg rek mooy ñuy jéem a xool ci acte yu mel nii ñu di ko def au lieu de critiquer ngay jéem a def ay actes yu wane ni yaa ngi jàpp ci li nga xamante ne nii mooy doxal sa centre de santé loolu rek mooy doonoon suñuy tànk moo taxoon ñu indi loo yi ngeen gis ci ordination bi Cheikh Diagne jaay di ko jëbal docteur ci turu xalaat santé turu mi ngi jóge ci ay doomi dëkk bi ñuy gis seen poste de santé di am ay sooxe-sooxe ñu ni nan la ñu war a mën a def pour jàppale li nga xamante ne nii mooy suñu centre de santé ñu ni lañu ñu war a def mooy dañoo war a concerté wu toog xalaatal centre de santé bi lan moo ko war a jëmale kanam baatu xalaat boobu moom lañ indi tuddee ko association bi. maanaam surtout ki nga xam ne moo jiite kër gi district bi di docteur Mbacke ñu représenté ko tey ak personnel bi ci nekk yëpp liñ man mooy remercier leen ndax yaakaar naa ne lii mooy taxawaayu képp koo xam ne nii yaa ngi nekk ci digg Mbacke ndax kër gi moo nekk kër goo xam ne nii kenn mënu koo séddee ñun ñëpp ñoo ko bokk. donc ak foo man dëkk ci Mbàkke donc am nga benn pas boo xam ne am nga ko santé santé bi ndax jàngoro feebar day bette donc bu bu la dalee moom fu ñuy njëkkee xalaat mooy hôpital donc boo ñëwee ba hôpital il faut que tamit nga toujours fa loo xam ne nii li nga soxla mën ko am donc bu demee ba nga xam ne doomi dëkk bi jóg jàppale ci lool donc mënuñu ñu rafetlu ko euh, di leen remercier encore di wax ñëpp tamit ñu ngi tijji nañ suñu porte yëpp. képp koo xam ne ni am nga lu la jaaxal ci hôpital bi centre de santé bi ak képp tijji nañu suñu porte euh, nga ñëw ñu toog waxtaan ñu wax ci liñ ci man ak lépp loo xam ne mën nañ koo ñu def ko ndax buñ sañoon ñi kat dañuy xëy jóg soo liggéey mais buñ sañoon kenn du feebar Sénégal buñ sañoon képp koo xam ne da nekk am sa wér gu yaram nekk sa kër mais lu mënta ñàkk la donc lu mënta ñàkk tamit boo fi ñëwee donc mënuñu dimbali la euh, lépp loo xam ne ni man-man egg na fa ñu def ko lépp loo xam ne tam laaj na ko tam ñu def ko donc bu ñu demee ba xam ne nag leneen moo si def maanaam li ñu yor nag maanaam la fenn jàllale waaye tam fi ne ni daal euh, li ñu gënoon mooy lépp loo xam ne malade soxla ko ñu fexe fexe fexe ba mu ñëw fii Mbàkke bu boobaa dina yombal ñëpp maanaam aji fajikat bi dina ko yombal aji kiy déplacé tamit dina ko yombal donc ñoo ngi remercier waat waa xalaat santé si jàppale gi nga xam ne ñoo ñu koy jàppale parce que lépp loo xam ne ne mën nañ ko si réflexion yi ci seen matériel ak lépp lu man xalaat ne lii kat bu ñu ko defee waa Mbàkke dina doxal Sande Sande ñoo koy def bu baax a baax tamit personnel bi nga xam ne jour et nuit ñoom it ñoo ngi fi duñ duñ toqi donc ñoo ngi def lu tout ba nga xam ne malade bu ñëw ñu satisfaire la ba nga xam ne lépp li suñ képp laa ñu defal la ko donc on remercie tout le monde sans exception au nom du médecin chef ak président CDS bi euh, monsieur Mbengue ak képp koo xam ne yaa ngi sol blouse nekk wala nekk administration au niveau du de santé district bi ñëpp ak suñu mbokki dëkk ñëpp ñu ngi lay remercier merci beaucoup. Eh, lii nga xam ne def nañ ko maanaam ñun sax dañ ne woon duñ ci wax ndax day suñu devoir ñu dëkk Mbàkke juddoo fi kon maanaam buñ defee li tamit maanaam dañoo def suñu loo xam ne mooy suñu devoir euh, li nga xam ne moo ci nekk mooy ñaan nañ yàlla ñun ñi nga xam ne ni ñoo nekk bitim réew. di ñaan yàlla képp koo xam ne am nga bagage yu mel nii te mën koy dimbalee poste de santé ak centre de santé ak hôpital yi ñu di leen ko dimbalee ah, di sant bu baax aussi nag ah, vraiment ah, ñi nga xam ne ñooy ki nga xam ne ni mooy médecin chef régional di docteur Dieng muy koo xam ne ni wax dëgg yàlla dem nañ fa seet ko ñaari yoon di ko jooytoo suñuy jafe-jafe yi nga xam ne ni moo fi nekk ah wax dëgg yàlla am na lu mu ñu loo xam ne ni gis nañ ko ndax gis nañ fi léegi ay médecins yu bees yoo xam ne ni ngi fi te vraiment nañ seen liggéey bi nga xam ne ni moom la ñuy doxal Mbàkke muy loo xam ne ni kontaan nañ ci am nañ ci mbégte nam ñu ko waxee woon la ko defee li nga xam ne nii moom moo ci nekk it ah, ñu ngi ñaan maanaam képp koo xam ne ni daal maanaam yàlla dogal na ngay te daan def ci poste bi te daan def ci bi daan def ci poste yi ñi ngi lay ñaan nga gën a jàppale ñi nga xam ne ni ñooy ndimbali surtout ñi nga xam ne ni handicapé yi aussi ñu di leen jàppale ndax ah, ñoom it dañuy ñoo xam ne ni comme seen bopp dañ leen jëm di leen jàppale li nga xam maa ngi koy remercier yi nga xam ne ni ñoo nekk Mbàkke tey jàppale maanaam poste de santé yi tey jàppale hôpital yi tey jàppale ñëpp ñu gën koo xam jokkoo taxawu Mbàkke nga xam ne président Latlo jiite ko ak association bi nga xam ne mooy Mbàkke sama gox nga xam ne maanaam fan yi paas gis ngeen lu li nga xam ne moom la def ki xam ne moom nañ dagoon loxoom ak association bi nga xam ne daar daar ay jeunes yu ndaw nekk fa nag doon ay jàmbaar yoo xam ne nii wax dëgg yàlla ñuy taxaw ci santé bi lay te aussi ñuy wax aussi vraiment état mu jàppale Mbàkke ndax gis nañ ne Mbàkke bëri na fi ay manquement yoo xam ne nii vraiment Mbacke war ñoo jàppale ndax li nga xam ne ni moo moo fi nekk mooy ministre bi nga xam ne ni mooy Marie Khemesse Ndiaye du ministre de la santé wax dëgg yàlla ñun daf ci am loo xam sax dañ cee ruus ndax ñëw jóge Dakar ñëw fii ñëw ba Touba jaar ci poste de santé yëpp jaar ci centre de santé yëpp jaar Touba maanaam vérifier centre de santé ak poste de santé te Mbacke gii mu waroon fee mën a ñëw nga xam ne mooy département bi vraiment loolu wax dëgg yàlla population Mbacke maanaam buñ sañoon mu di ñu jàppale di ñoom waa santé ñu di ñu gestu bu baax a baax di gërëm aussi euh, syndicat bi nga xam ne moo fi nekk muy mu di ko wax si sees la te vraiment euh, assan Wade mi nga xam ne moom lañ fi teg ñi ñoo xam ne ñoom ñu ngi dox ci santé bu baax a baax vraiment daal duñ ci nekk di wax wax ju bari ndax naaj bi dafa tàng mais nag vraiment te nag di nag beral nuyoo ak cant yéen journaliste yi ndax li tax ñu di leen beral nuyoo képp ku leen képp ñëpp leen war a beral nuyoo ndax da lu xew Mbàkke ngeen ñëw yéen a ngi nii dagg seen ité yëpp ñëw fi te duñ leen jox dërëm fayuñ leen defuñ leen dara parce que da ngeen a xam ne Mbàkke ngeen dëkk kon nag ñi ngi leen di sant yéen it di gërëm bu baax a baax lii nga xam ne ñoo ngi koy def defal ko santé bi day sunu devoir leer na ma ne fii balaa ngoon adduna yëpp danañ ci jot nag yéen ñi ngeen xam ne yeneen a immigré yéen ñi ngeen xam ne yéen ay journalistes yi sant nañ leen bu baax a baax ndax wax dëgg yàlla li nga xam ne ni moo fi nekk mooy benn centre de santé bi ba ma ko xamee ba léegi gisum lu bari lu changé kon nag état bi war naa gestu centre de santé bu Mbàkke bi déjà courant bi fi mu ne stable day coupé ak a coupé waat te maanaam li ko waral mooy capacité bi nga xam ne moo fi nekk amu doole kon nag ministre de la santé war nañoo gestu ci loolu ñu ngi nuyu aussi euh, le maire euh, sunu ministre bu bees bi muy DG Galoba euh, wax dëgg yàlla fan yee passé demoon nañ fa di ko wax jafe-jafe yi nga xam ne moo nekk courant bi keroog bi ñu àggee di waxtaan ak moom dafa woote def main libre ki muy def main libre muy kilifa mu ne ko ndax mën naa laa def main libre kooku na ko wa mu def ko main libre mooy bu ma juumul mooy waa jéem la ah Moustapha voilà mooy waa jëm ñëw nañ fi ba xool installation courant bi fi nekk mais vraiment bi dikkee sax ñoom dañoo jaaxle ci courant bi parce que dañu courant bi vraiment ni mu ni ko installé nii il faut que maanaam ñoom ñu xa ñu seetaat ko bu baax a baax ñi nga am yaakaar ne na xëy na ñoom danañ ci jël maanaam benn responsabilité parce que bëgguñu it li dal ci maanaam hôpital yeeg santé santé yi ak li ñuy xew buñ sañoon du dal ci su mbàkk yi kon nag ñi ngi ñaan yàlla balaa booba nañ ci jéem a jàppale di ñaan le maire Thiénaba poste bi ñu ko jox yàlla na ko yàlla na ci waa Mbàkke jariñu te moom it maanaam yéen bi nga xam ne jox nañ ko ko mu jariñ bi mu doon yéen boo xam ne lu oyof la ñaan na rek di ñaanal Mbàkke aussi di ñaan yàlla euh, Mbàkke xëy na lii ñu fi def danañ am ñeneen ñoo xam ne ni sax danañ def lu raw lu ñu def ñu ngi leen